jërë ngeen jëf mbokk internetu diaspora news tv nuyu nañ leen di am mbégte ak contentement euh, di leen dalal ci seen émission euh, l' essentiel du matin comme niñ koy defee tous les jours ñu war a dikk ak yéen ci li gën a fës ci actualité ñeel biir réew mi ak euh, bitim réew ma ci ànd ak sama naataango di Amina Camara madame Ndiaye madame Diaye, maa ngi lay Fatou maa fay bu baax a baax. ni nga def tey end <laughs> naka weekend bi. ça va ça a été. mu war a dikk ñun ci kanam ci li gën a ci Vous bi tey nag du matin dafa daal di euh, dalal euh, ki nga xamante ni nii Momo Cissé mu nekk koo xamante ni euh, présenté Momo di chroniqueur consultant en même temps Momo ñoo ngi lay tax la naa kulla baabin kunta fatiha wali saalixina min alxeyraati yàllaahu Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu Amina sama xarit bu bees bi. Mm-hmm. sen duo de choc bi waaw suma xarit la Amina. deug la ku baax la jarul nga koy baab. ku baax la ak <laughs> a baax Amina. non ya ma gëna a baax. di ko nuyu di nuyu euh, euh, Badou. di mm-hmm. nuyu euh, sama gaay nek ci technique bi. Mm-hmm. ak le Sénégalais de l'Allemagne. di nuyu ñëpp ñu ñuy sétane ci biir réew mi ak ci biti réew Fatou. muy non oustaz ya oustaz su nga tijjee neex na trop macha allah. <laughs> bal sànni xeer bi. <laughs>

dolli ak jafe-jafe yi nga xam ne rek euh, mi ngi koy jànkanteel après su loolu jàllee ñu daal di dem ci yéenekaay yi enquête mu daal di ñëw ak ñun euh, ci la justice solde say compte ginnaaw assemblée bi nga xam ne rek daal di nañ koy def Ismaïla Madior Fall daal dina dikk ci affectation yi nga xam ne rek daal di nañ koy faral di nemmeeku euh, fi nga xam ne rek mooy Soryanto ak Dakar waaye itam daal dina ñëw ak ñun ci ampleur yi nga xam ne rek mooy dernière mesure yi nga xam ne daal dinañ koy jël ci consultation à domicile yi nga xamné dañ koy faral di ko lolé euh, la dal di xamlé ci euh, enquête ñu jall ci les échos mom dafa dal di ñëw ak ñun ci euh, renouvellement jëm ci li nga xamné rek moy consultation à domicile libéral les échos dafa dal di ñëw ak ñun ci renouvellement des instances bi nga xamné à six mois des élections présidentielles lek ci lañ jëm mu melni libéraux yi dañoo dal di dénoncer décision insensée bi nga xamné rek mën jural ay. conséquences waaye lépp rek ñu daal di koy jël daal di koy teg euh, ci kaw ndodd ki nga xam ne rek mooy Karim Meïssa Wade euh, bu loolu jàllee mbokk yi ñu jàll ci le quotidien moom itam dafa dëkk dikk ak ñun ci li nga xam ne mooy attaque contre la justice ak fonctionnement ba lu ci ordonnance euh, lañu ko daal di mën a woowee jëm ci union des magistrats Sénégal Ousmane Chimère Diouf di ñëw li nga permanent yi nga xam ne dañ koy faral di nemmeeku malgré menaces yi xam ne dañ koy jël rek di ko teg ci kaw euh, ñi nga xam ne rek ñoo yor euh, wàllum justice fii ci réewum Sénégal euh, Sud Quotidien moom dafa daal di ñëw ak ñun ci Choguel Mega mu nekk première ministre bu transition malien ci intervention militaire bi nga xam ne rek daal di nañ koy envisager foofu ca Niger la mu daal di xamle rek ni CEDEAO fi mu nekk nañu jël seeni responsabilité loolee bis bu amee foofu ca Niger rek mën nañoo jàpp ni existence

pirogue bi foofu euh, bàyyi woon ci Fass Boye euh, corps sans vie yi nga xam ne rek daal dinañ koy nemmeeku mën nañoo jàpp ni mbokk yi tey jii eh, ñi nga xam ne la ci seen doom daal di génn àdduna tey jii la ñuy daal di jot li nga xam ne rek mooy seeni doom eh, yi nga xam dañoo ñàkk seen bakkan muy eh, nouvelle boo xam ni daal faatu lu triste la te dal ci kaw Fass booy mën naa ni sax Fass booy tey jii en deuil loolu lañ ko mën a waxee. Mhm. ñu daal di ñëw ak ñun ci l'observateur mu daal di ñëw ak ñun ci candidature bu Serigne Mboup ci présidentielle 2024 mu mel ni sax moom daal xam xamle ni mooy nekk candidat. ñi nga xamni rek ñoy nongo daara yi euh, war nañu am fi ci réewum Sénégal war am ay comme ñeneen ñi di euh, mu Serigne Boub euh, candidature mën ni sax candidat ñi nga rek daara bu quotidien dafa ak ñun Sénégalais des attaques informatiques toute l'année lolé lañu dal di itam fësal euh, ci li quotidien euh, benen candidature bu ki nga xam rek moy membre Ibra mu melni sax Fatou dal dina euh, fësal fi mu douze points ci programme yi nga xam rek war nako dérouler ci campagne présidentielle yi nga xam ci lañ jëm mhm. libération mom dafa dal di ñëw ak ñun ci rebondissement dans l'affaire de Juan Branco mu melni mbir yoy ba légui jéxagul ndax gis nañ ci benen nouvelle arrestation bo xam ne enregistré nañ ko il s'agit de Ndiogoulo mu nek xarit ci ki nga xam moy mooy maire bu Sangalkam momi itam d'al di ko tegg loxo ci mbir momule waye itam ba ci libération daal di dikk ñun si euh, ki nga xamne rek moy Mama kundul et si di nañ leen war a niki tay ji ginaaw liñ leen doon topé muy poursuivre pour association de malfaiteurs ak escroquerie jëm ci grossesse et complicité dal di nañ xamal ni euh, ki di Mama kundul euh, Fatou must tombé enceinte waye aussi lolé ñu doon wax ni sax dafa accoucher dara amu ci looloo tax tey jii bu ñu moytuwul ci altine bi mhm. dinañu ko defeere moom ak ñi nga xam ne rek ñoo àndoon doon def euh, euh, complicité boobu si mbir mi nga xam ne doon nañ ko si toppee ñu daal di jëm ci yenikaay tàggat yaram yi lañu koy jeexalee faatu ñu daal di ñëw ci record moom daal di ñëw ak ñun ci ki nga xam ne mooy basketball euh, bi nga xam ne moo match bi doxoon ci diggante Sénégal ak Cameroun mu mel ni sax boobee match équipe nationale bu Sénégal bi dañ cee lajji dañ leen koy daal di dóor dóor yu méttee métti ba tey ci euh, réew mi quotidien sport moom dafa daal di dikk ak ñun ci euh, bu nga xam ne euh, Sénégal dañ ko daal di éliminer ci compétition bi nga xam ne doon nañ ko amal jamono ji faatu ñu daal di koy jeexalee ak li nga xam ne rek mooy sunu làmb moom dafa daal di ñëw ak ñun ci combat bi nga xam ne moo war a am le premier octobre ci diggante Ama ak ak Gris mm-hmm. euh, jàpp nañ ko premier octobre bi nga xam ne rek moom la ñu jëm muy match combat boo xamante ni combat de choc là ko mën a woowee te ñëpp ñu ngi koy xaar le premier octobre Inshallah. lañ ko japp li mo fi gënoon a fess jëm ci yéenekaay Fatou. voilà cant ak ngërëm na la euh, Amina. Mm-hmm. Momo euh, nga déglu li gëna fess fës ci yéenekaay bi euh, ñaar yi nga xamanteni ni ñoom ma gëna gën a frappé mooy problème bi am fee ci face Boy muy mm-hmm. émigration bi ñu gisoon jamono ji sax ne ndawi face Boy.